Mouhamed euh, Seck euh, Rewmi mi ngi lay nuyu. waaw maa leen nuyu Ndeye Comba. voilà Mohamed Seck nga nekk secretaire général bu section HLM ACIS euh, di association des commerçants et industriels du Sénégal chargé de l'organisation au niveau central euh, tey jii ñu lay laaj en tant que commerçant ban explication ngay joxe ci yokkute gi nga xamante ni dañu ko nemmeeku ci prix yi fii ci Sénégal lan moo koy daal di expliquer. waaw Ndeye Comba xam nga yokkute boobu mën nañ ko jàngat ci ñaari fànn benn fànn bi njëkk mooy. yokkute koo xam ni ñun fii ci Sénégal mënuñ si dara ndax te bitim réew la yokkute amee mu mel ni prix yi nga xam ne moom la ñuy jëndee fa nga xam ni eh, ca bitim réew prix yi ñu fay jëndee li ñuy jaay si fii prix yooyu bu yokkoo loolu moom mënuñ ci dara ñuy tuddee prix d'achat à l'import mhm. beneen bi mooy li ñuy tuddee fret maritime mooy conteneur wala bateau yi nga xam ne ci lañuy ñuy dugal marchandise mi Eh, bu daan bu ñu daan fayeeku benn su nekk yi ñu ngi fayeeku juróom bu ko defee loolu it xam nga ni day nekk loo xam ne day dafay dolleeku ci njëg bi eh, bi ci mujj nag mooy dollar bi nga xam ni fan yi dafa yokk bu baax loolu aussi te bu ñuy jënd ci bitim réew lu ëpp dollar la ñuy fayee loolu aussi dafay nekk loo xam ni da ciy dolleeku donc ñett yooyu daal dafa bokk na ci li nga yi nga xam ne xam ni eh, li yokk yenn njëg yi ci ci la bokk waaye nag ma leeral foofu que ni. Mhm. Euh, bopp yàgg nañ ci waxtaan. état bi yàgg na ci wax waaye dafa nekk ñett yoo xam ni état bi lam ca man bariwul xanaa bu budul xanaa jéem a waxtaan ak yeneen naataango africain yi parce que bu dee fret maritime bi ni mu yokkoo diggante ci Afrique de l'Ouest yokkoowu ko Europe yokkoowu ko Amérique Afrique de l'Ouest ak ak Amérique latine la gën a yokkoo ndax li ñuy joxe comme lay ñoom mooy que ni conteneur yi bu dikkee fii du amaat du teel a amaat chargement pour dellu donc diir bi mu fiy toog day yàgg loolu tax ba ni ñoom dañuy jéem a compenser seen perte yooyu loolu lenn benn lay la ci. ci mhm. indi yokkute boobu. Hmm. donc fret maritime boobu ñuy dégg mooy lan exactement comme ça sénégalais yi mën ko comprendre. waaw mooy li ma la wax xam nga leeral naa ko sànq ba ni. Mhm. bu ñu jëndee marchandise bi ba euh, conteneur yi ñu koy dugal. waaw looloo si. ba wala ba dañ koy dugal. ñu transporter ñu ko indi fii transport transport boobu ak yi ci aju moom la ñuy tuddee fret maritime. d'accord looloo cher. waaw léegi ñiy yokk fret maritime bi ban explication la ñu jox commerçant yi. xam nga eh, explication bi yàgg ndax ndax bi Covid bi duggee rek mooy coronavirus feebar boobu la yokkute bi am ñoom li ñuy wax mooy que ni xam nga leeral naa la ko sànq man man seen conteneur yi bu dikkee fii eh, diir bi mu fiy toog ci ah, Afrique. pour génnaat day yàgg. dafay yàgg biir boobu nag. pertement mm-hmm. la ci ñoom. pertement boobu mu leen di jural nag moo tax ñoom it dañ ko ciy bëgg dañuy bëgg fu ñu ko compenser. Mm-hmm. xam nga fu ñu ko daboo. léegi lan moo tax conteneur yi su ñëwee Afrique di fi yàgg lan moo ko waral. xam nga Afrique nag li loolu nag la ñu war a liggéey. Mm-hmm. ndax Afrique dafa nekk réew moo xam ni waa euh, continent boo xam ne la muy exporté bariwul li muy ëpp dafay importé. léegi nag il faut di ko manufacturer di ko m di ko exporter muy dem bitim réew loolu dafa nekk liggéey boo xam ne war nañ ci liggéey lu yaatu ci biir Afrique ndax bu Afrique bëggee développement il faut mu jóg ci ci li mu nekk mooy di importer rek di dundee il faut aussi muy jéem aussi di transformer di exporte di produire di exporte te fret maritime boobu est-ce que état mën na si dara pour mu wàññeeku. leeral naa la ko sànq aussi man la loolu état lam ca man mm-hmm. xëy mooy jéem xool nu mu waxtaanee ak comp ca sax benn état rek du yomb waaw xanaa état yi ñu xool seen kuréel yi ñu mën a àndandoo waxtaan ak compagnie mariti maritime yi parce que compagnie yooyu aussi dañoo am doole mm-hmm. waxtaan ak ñoom xool nu ñuy fexee ba loolu mën a wàññeeku mais kon fi ñu nii comme état wu Sénégal daal mënul lu bari euh, ci li nga xam ne mooy wàllum fret maritime maanaam la mu mën a wàññi pour prix yi wàññeeku loolu bokku ca déedéet ndax boo boo ci mënoon def na ko bu ko mënoon boobu ba léegi état bi def na ko ndax bir na ma ne lii nii am neexu ko. ak lu man a am état ba est-ce que li mu li waxoon tamit si wàllum impôt yeeg taxes yi euh, wàññil na leen ko pour prix. wàññi waaw loolu xam nga. def na ko am na yoo xam ne wàññi na ko ndax bu ñuy xoolee ci ci dëwlin bi aussi xam nga dëwlin bi mi ngi woon ci ci vingt huit mille vingt huit mille fan yii passé. Mhm. am na taxes yoo xam ne def na état def na effort ba wàññi ko. ba ñu ngi ci vingt six mille. Mhm. xam nga loolu effort la. effort yu état bi def def donc aussi loolu aussi aussi en tant que association assise dañ koy reconnaître. Mhm. bien que nag def na lu bari lu mu war a def. Mhm. def na lu bari loo xam ne état bi war na ko def mais nit ki aussi bu am na effort yoo xam bu ko defee aussi dañ koy reconnaître dañ koy wax. loolu la ne état daal la mu mën euh, ngir prix wàññeeku moom def na ko il mu def euh, am na lu des. parce que mu jouer ci am na yenn levier yoo xam ne am na ko. Mhm. yoo xam ne mën na ci euh, ñu gis ni tamit récemment ci Touba sax moo waral coow li bari euh, ñuy dem bay jaayee oignon trois mille francs CFA mu nekk lu doy waar loolu loo si mën a wax Mouhamed. waaw comme ni ma la ko waxee sànq aussi xam nga loolu dafa nekk mbir moo xam ni mbir mu ñuy ñaawlu ndax eh, am na yokkute yoo xam dafa jéggi dayo ndax bien que ni euh, euh, commerçant nga euh, profit nga bëgg gain nga bëgg mais nag bu mu tax aussi nga lor sa nga lor sa askan parce que ñu ñëpp ci ci askan wi lañ bokk bu ko defee nag xam nga li ci li ko waral xam nga yokkute bi li mu commencé yàgg na avant tabaski gisoon nañ ko gis nañu oignon bi di yokku pomme de terre bi di yokku mais état waroon naam jaar ci ci ci agence de régulation des marchés téem a xool nu muy anticiper ci lii am anticipation moo la mooy fexe ba rupture genre rupture bi ñu créé di fi am ñu ñu teel a autoriser importation oignon bi war a dugg Sénégal te d'ailleurs récemment semaine passée la soo jot benn benn communiqué nii dañ ko autorisé autoriser à partir du vingt deux août pour euh, oignon importé bi soo ko mën a dugg Sénégal loolu nag bu fekkoon anticiper nañ ko oño boobu fekk si mooy soble boobu fekk soble bii fi nekk ñu daje fi bu baax bu boobaa euh, commerçant bi du am lay producteur bi du am lay ndax bu ndax marché bi dina dina bari soble te soble dafa nekk loo xam ne kenn mënu ko conserver lu yàgg bu xasee dugg ci magasin bi mënoo ko fa difficilement nga koy conserver lu ëpp quarante cinq jours léegi mhm. ñiy wax ni euh, prix yu yokk yi tamit jël lay bi boole si guerre ba am ca euh, ca Ukraine est-ce que yow da dëggal ni euh, guerre ba am ca Ukraine tax na prix yu yokk waaw walla déet. xam nga xam nga loolu moom lay la rek guerre ba am ca bien que ni inflation am na au niveau mondial loolu moom ñëpp ko constaté yokk bi am du Sénégal rek àdduna bi yëpp même les pays développés dañuy yokk moo tax nit ci booy wax da ngay wax yàlla tax. xam nga léegi nag jar ba am te ikram xëy na am na yenn produit yoo xam ni comme blé nga xam ne ëpp foofu la jógee loolu bu bu bu amee lu ci yokk mën nañu mën mën nañ ko layale eh, guerre Ukraine bi waaye soble bi nga xam ni fii lañ koy produire loolu jotewul dara ak ak guerre Ukraine pomme de terre bi jotewu ñu dara légumes yi nga xam ni fii lañ koy defaree di ko fi bàyyee lu mu jotee guerre Ukraine jotewu ñu dara loolu moo nekk. Hmm. ñu ñu ne waaw. ci wàllu légumes yi aussi may ma leeral foofu que ni. waaw dugg yi cher na trop waaw. Mhm. am na am na yokkute yu am solo yu ci am lu mel xam nga li ko waral aussi foofu am na légumes yoo xam ne duñu ñu du ñu nanguwuñu nawet. Mhm. léegi nag yooyu noonu à chaque fois bu nawet di dugg dafay am dafay dañuy autoriser importation euh, lu mel ni carottes yi jógee Maroc ak yeneen di dugg fii loolu aussi état bi ci war a joué def de telle sort que ni. avant lii di am rupture di am ñu gaaw autoriser carottes yooyu ak légumes yi nga xam ne ñu jógee extérieur ñu gaaw dugg si bu ko defee bu ñu dugg see rek loolu mën na jouer ci coût ci ci prix bi ba du yokk yenn yokk yi waaye bu ñu xaaree ba nawet bi dugg ba légumes yi commencé di di manqué ñu soog a def autorisation bële diggante boobu ala kulli il faut yokkute am yokkute bi nag dégg na day wax dañ koy déplorer mm-hmm. ndax lu mën a léegi tamit euh, ñu gis ni beneen problème mooy yéen commerçant yi euh, du ngeen jaayee benn prix maanaam benn produit euh, kii da koy jaayee 1000 francs kee jaayee ko 1100 francs kii 1200 kii 1500 ba consommateur bi ci boppam dootul sax comprendre lu ni mel loo ci mën a wax ak lan moo ko waral. waa xam nga aussi nit ki aussi la nga jëlee rek jaayee. ndax kii mën na mën na jëndalee kii jëndalee parce que marché bi aussi am na prix yoo xam ni homologué nañ ko mais am na yoo xam ne homologué wuñ ko lu mel ni par exemple li ma la wax sànq euh, légumes yi boo demee ci marché caaro yi baa nga dem ci marché mais loolu loolu accord la rek xam nga conscience bi commerçant def seen seen kii rek seen biir mais amul homologation prix légumes yooyu mais ne bu mel lu mel ni déwlin ak yeen yi nga xam ne ko ak suukar ak yi nga xam ne ko homologué yooyu moom état bi moo war a sévir xam nga war a def li nga xam ne moom moo ko war bu gisee koo xam ni certains commerçants yi nga xam ne ca ca ñëpp yenn la ci commerçant yi nga xam ni respecté wuñu dara leen neex la ñuy def bu boobaa état bi dal seen kaw xam nga utiliser xam nga moyens yi muy nekk a sa disposition pour mën leen faire revenir à la raison voilà ñu gis ni tamit euh, pour commerçant yi respecter décision wu état yi dafay jafe souvent bu ñu homologué prix euh, du ngeen ko respecter souvent bu ñu nee wàññi nañ euh, suukar bi du ngeen ko respecter. homologation bu xësee bu xësee am rek. Mm-hmm. foofu état bi moo war a sévir aussi. Mm-hmm. prix ñu homo bu état bi sévir ni mu war a sévir bu boobaa commerçant bi ko respecté mais malheureusement malheureusement nag foofu nag aussi dafa am faay état bi ministère du commerce seen contrôle yi war a def yi di ko def d'ailleurs mois bi passé yëpp xam nga ni campagne électorale bi législative yi moo taxoon daanaka taluñu sax xam nga nit ñi ba li am nii am te pourtant nag administration warut a joteeg dara ak politique ñoom seen liggéey la waroon nekk mais malheureusement nag loolu amul moo tax diggante bi jaxasoo pëcc xoo bi am ba lii lépp am fii loolu moo ko waral. Euh, tey jii euh, commerçant yi ak industriel yi am ngeen euh, solution bu ngeen di proposer pour prix yi wàcc parce que askan wi sonu nañ ba mënatuñ koo dékku. waaw xam nga li ma li ma la ko sànq rek moom inflation moom de toute façon lu ci ëpp am na lu ci bari loo xam ne niveau mondial la du yomb yomb te maîtriser mais nag état bi aussi am na ay leviers yoo xam ne war na ci mën a agir jouer ci ba fexe ba lii am nii mu wàññeeku parce que askan wi aussi sonn nañ quoi qu'on dise askan wi nañ ko trop ndax prix yi yokk nañ yokk ko boo xam ni budget di ménagère du mënatul a suivre léegi bu ko defee li li ñuy wax état bi rek mooy mu joué ci yenn taxes yi fexe koo wàññi ba état ba askan yi voilà Mouhamed euh, Seck Rewmi réew mi ngi lay jaajëfal voilà di leen voilà may fàttali Mohamed Seck yow yaay secrétaire général bu section HLM ACIS chargé euh, de l'organisation au niveau central bu association des commerçants et industriels du Sénégal.